ano depp noo ko sarte ci màng ci ci war koo jaay ah ndox mi fees dell xamoo fenn foo jaar gisoo kenn gisuñu maire gisuñu conseil gisuñu kenn ñun daal wax dëgg fa yàlla jaaxle dong lañ def loolu liggéey si ay ordonnance lay nekk nit ñee ngi feebar yooyee ngi matt nit ñi secteur bii nit ñi sonn nan te Mbacke gépp la nag foo romb gis Mbacke gépp nii la mel amuñu soxla si dëkk bi gisoo leen si dëkk bi sax laa wax ay benn conseil municipal doo taseeg moom si dëkk bi ñi wax ñi mu fi bàyyeeg ñi ñëpp duñ doo gis dara dara doo ko gis danoo yeb waa bi xamante ni ne nii nag ñi ngi liggéeyee ci mairie bi ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum bale tëli bi ba tey juróom-ñetti weer ci ci ba tey fay ñu leen seen xaalis nañ leen jàppale ñu fay leen seen xaalis waaw fay ñu leen. loolu nag ñaaw na trop ci ñu ne Mbacke am na maire ñun buñ ne ñu Mbacke am na meer ñun duñ ko gëm parce que ñun ah, jàppuñ ne Mbacke am na maire ndax ñun jàppoon nañ ne buñ amee suñ naqar war nañ koo mën a jooytu ci maire waaye nag lii suñu yaakaar dafa tas ci garaba. mais yaakaar nañ ne Amadou Ba mën na cee def dara ndax bo boo euh affaire mënu fe gàññe lu bari wala wu fi dara mooy dafay defu dara nak bu waxanti deug parce que amul usine amul ben barabu liggéeyukaay. APR la ñuy sanctionné suñu yon neeku ci Amadou Ba ak Mademba ñun ñom ñep la ñuy sanctionné ko duñu indi won duñu indi lon ku jige sa yalla doon affaire duñ excès dañ koy sanctionné.